waaw ba pare démb gis nga tiis bi nga xam ne moo wàcc nag ci kaw. Ah. Balla Gaye 2. waaw Balla Gaye waaw mooy entraîneur bi. jégalu Balla Gaye 2. Ah. entraîneur papam. papam en plus waaw yar ko nag vraiment. moo nekk loo xam ne ndeysaan. Mhm. waaw lu. yàlla yàlla yàlla bu ko cet jiitu si baax na la yàlla xare ko amiin am nañ ci yaakaar la ñu gis démb Cambérène day demoon nañ démb ci armée ya. Mhm. Ah, demoon nañ fa démb. Mhm. ci denc gi. vraiment yaakaar naa ne euh, daal am nañ ci moom jortu bu rafet a rafet a yàlla baax na yàlla bu waaw moom daal. yàlla bu yaakaar tas jaale nañ ko ñëpp. Mhm. jaale ko Ablaye Ndiaye ba nga xam ne mooy borom siis basket club. Mhm. ak euh, Nourou Tall école football Cheikhou Diop. Mhm. ak waa école de lutte Balla Gaye gépp waaw ndax moom daal démb daal la lu may xew jaale ko tam doomam nga xam ne sama xarit la. nekk sama rak nekk sama jarbaat di Youssou xam nga Balla Gaye de am na doom ju mu tuddee Youssou Ndour. Youssou Ndour mel ni. waaw Youssou Ndour mii di way nii. yàgg mooy bi day bëri di. colère bu yàgg bi dëgg la. lu mbay jëfee day bëri bëri la sama sama sama hmm? gis naa ko démb bi ñuy denc bàyyi bi ndeysaan. ndeysaan ma ko cëy. loolu yàgg loolu àddina mhm. daal xam naa ne jël ko dugal ko ci pax. allahu akbar. waajur mbay. waaw jàlle nañu ñëpp jàlle nañu waa géej waay gépp de. yàlla jaale nañu ñoom Aziz Ndiaye ñoom Pape mm-hmm. Mama ñoom Guy gi Elton. vraiment lees. ak lu waaw ñëpp ñëpp daal. ñëpp ñëpp promoteur yee. waaw liiru jàng. Mm-hmm. ak géejuwaay gépp daal ak ñëpp des ñëpp ñëpp ñëpp. CNG ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. yàlla Balla day mm-hmm. eh, ku baax. ku bëgg ku bëgg ndaw yi ndeysaan. allah ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe bi jaay Seydou. allahumma amin allahumma amin allahumma euh, euh, yàlla baax na. ay jëm si le maire. ma si profité di souhaiter joyeux anniversaire sama tonton préféré Alioune Fall démb la woon. Hmm. Euh, xaritu Papa Abdoulaye Seck. ah waaw suñu nijaay bi waaw la famille waaw suñu nijaay bi waaw suñu nijaay bi ñu ngi koy tudd moom bari na. waaw Alioune Fall. waaw ah, ah, suñu nijaay bi waaw moom bokk ndeex baay. macha allah Tëngéej parce que waa Tëngéej ne dama leen bàyyi temps yi dama jël waa Cité Cyprès 2. Ah, Cité Cyprès 2 nag si ma ah, leen def la dafa sori. Ah. donc il faut ma jël leen. may nuyu sama famille. bi nekk Cité Cyprès 2. monsieur le <laughs> xam nga ne moom moom sama Tëngéej la mosuma ko jógee. sponsor yi anañ. ajaratu Ayda Njong. 1000 milliards yaa ngi ko fay xaalisam moo gën de. ndax fay nañ ko ko. fay nañ ko. damay laajte rek. fayeguñ ko fay fan fayeguñ ko xarit taalibe anamu. waa Diop si anamu. ah. suñu sponsor yi nag bàyyi nañ borom fukki pencee ñaari. ah moom it anamu. ñun tam dañoo bëri ay opposants. bëri ay opposants nag foofu dëgg la ah tamit. père Baye di sëy sama papa ji. waaw waaw ça fait longtemps moom la dafa bàyyi doomam temps yi père Baye di sëy mu ngi nuyu bu baax Lalaye Chafal borom Kofem. moo ko ci de. eh xalifa Babacar Sall waxal xalifa Sall. waaw kay xalifa Babacar Sall. fa ñu noonu. ah. kooku nag. ah. am na ku ci bokkoon de. kan la jiital opposition. waaw génn na. dafa génn. non non non non. idi kay génn na ci sponsor yi kay idi kay Farawati Ndiak alkaali Massamba waaw ndi ko Coro Sarr kooku nag mooy patron wu sponsor yi ndi ko Coro Sarr maa ne Coro Sarr ba fa Coro Sarr kooku kenn lu mu ñu koy nuyu bu baax maam Abdoulaye Wade sponsor bu mag bi yaa ñu xamal rek autoroute à péage AIBD barki wi nañ moo fa njëkk wàll les sept merveilles mine jet privé ling ah <laughs> surtout <laughs> ku tedd ki de yaa ko xamal jet privé. ndeysaan muy ñaari yoon. ah monsieur le maire bu Tëngéej ñu ko. waaw waaw daaw da ñaar les villes de la ville. waaw ñu koy nuyu baax Bougane Gueye Dany ñu ko dugal. ñu dugal gëm sa fi dëggal sa bopp daal dugg. dugg ku fi ne di def yi génn. ah ay mbiram dafa xawul leer. non non non. <gasps> man na dama bëgg dama bëgg dama bëgg a amul ay ñoo bokk rek yooyu dama bëgg a ruubee. non xoolal taxaw samp sa ndënd rek dugg ci estoso xoolal defoo ko ñu génn. Ah. dama lay génn wuy ma wuy nañ bokk ndey ak baay. dafa leer. booy jéem a loxal. xoolal mhm. ma football la. jogay moom ko ànd ak moom fii doo fi dugg. tonton waaw. Macky moom ku ànd ak moom fii moom sponsor dama lay génn. dugal sama xarit après dama koy génn. dugal sama xarit. kan la. dugg tigi. kan. ku dugg dugg. Sidiki Kaba. kooku sama xarit. Eh, terminé rek kaay jox booy bàyyi affaire Sidiki Kaba. Lalla Aïssa Fall. non Lalla moom dugg na wax. fa dëgg di sëy génn na. non mënoon na non Lalla moom bëgg a génn bëgg a génn. ak kanaar sax nga fa fu mu. ah ay dem Mbodj. waaw waaw kooku kay bi mu duggee du tey terminé <laughs> yéen kaay ñëw ñun. mu wax gaal gaa ngi nii. Mhm. téeméer ak fanweer ak ñett ci ñoo xam ne dañ doon dem. Mhm. waa day dox ca ndox ma nag. Barça Balzac ji daal am na ci yoo xam ne xale yi léeg-léeg dañuy gént. daan lu ñuy gis léeg-léeg moom dëgg léeg-léeg lu ñu gëm. Mhm. dégg nga Toubacouta beneen gaal tàkkaat na fa. juróom réer na. benn xale bi moom fukki at ak juróom bokk dañuy dee. Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké nag mu yor kaddu murit yi nee na. gis nga barsa barzak bi képp koo xam ne dee nga ca jàppal ne nga xaru xaru la ah waaw mhm. Mahmoud Saleh ngi nii de l'ingénieur politique de Macky dégg non kii sax naa ci dellu si ci kanam da nga ciy teg Bassa Baara voilà voilà voilà voilà box ma bi li ñëw ak ñun ci <laughs> fatwa wa général mu yaa ngi nii barsa barzak uh-huh. daal dafa araam dégg nga sëñ Mountakha nee na de mm. wal fajiri ñëw ak ñun ci Eh. Idrissa Seck ci lu jëm ci wàllu statut opposition mhm. ca kër maître na fa Satou Diop Cissé la demoon. Ah. yaa moom daa bal Kajoor waaw. moom daa Kajoor eh Mara Mara. état eh, mi ngi liggéey de. non non jubóo naag kële jubóo naag jigéen ba dégg léegi nag moom expliqué na digganteem ak Macky daal maanaam la ñu tënkoon ci biir néeg yooyu. nañ ci dellu si waat de. barki yu neen tamit. dégg nga loolu. cuisine interne bi. voilà source a ñëw ak ci. gaa yaa ngi liggéey. Hmm. Pastef bu Ousmane Sonko ak taxaw Sénégal bu Khalifa Sall. ci lu jëm ci local yi gaa ñaa nga ca. Ah. élection locale yi nag USAID sauvé na ko. Hmm. waaw waaw USAID. waaw sauvé na élection locale yi de parce que léegi nag tànn nañu cabinet bi nga xam ne moo war a auditer le fichier électoral. ñun daal nañ sëgg bëre rek. nañ sëgg bëre rek dégg nga. waaw hmm. kay waay waaw ah, kay. nañ sëgg bëre rek monsieur le maire. réew mi quotidien ñëw ñun ci sëñ barsa bal bal zàq ji ku ci dee ku ne safara nga jëm. safara xaru la. xaru la xaru la de. ndigal jëfee xalif bi wax na. dégg nga loolu. Mhm. waaw kay waay. l'observateur ñëw ak ñun ci voilà xalifa Babacar Sall ngi yënguwaat de. Mhm. waaye premier ministre ñi fi nekkoon ay premier ministre ñoom fan lañ mujjee. ah. ana euh? Souleymane ana Souleymane Dende. <laughs> évidence yéen a kaay ñëw ak ñun ci Modou directeur général bu AGETIP. dégg nga loolu nee na comité international des Pôles defaraat station régionale RTS Matam waa ji kay taf-taf la ko def. kon baax na Habib moom fi mu nekk nii moom ni mu rayaatee opposition bi rek ak li ñuy dund ci la de. kon baax na les éco yéene kaay ñëw gi ne ñu xoolal Macky dalalaat na yeneen puggal. am na yeneen ñu ñëw dalalaat na Agibou Soumaré Ablaye Balde ak Talla Sylla la. dañuy ñëw waaw. dugg mais journal bi nee na gis nga Idrissa Seck expliqué la. deal national deal la. Mm-hmm. xam nga dañu doon laam-laamee naan deal la ak du deal explique na deal national bi dox ci diggante ba Macky nee na ca commencement ba xam nga lan la programme woon mm-hmm. lu mu. lu ñu programme non sama ëppukaay bi lañuy. Ah, ah bon bi ngay lañ ma tere. Idrissa commencement bi moom li mu li mu deal bi moom Macky mm-hmm. moo doon mu toog ci opposition bi. nekk le chef de l' opposition. ndeke la nekk chef de l'opposition. moom ndeke liñ fi nekkoon yëpp di ko jàppale. dafa na régime présidentiel lañ nekk. kon loolu avant la woon. régime présidentiel lañ ne waaw ki ñëw deuxième kooku euh, mooy chef de l'opposition waa Pastef fii tollu fële oui waa PDS tollu fële chef de l'opposition ñoo ëpp ay député. ñii ñii ñi di ko sotle. ndekete boobu nee na Macky moo ne ko yow toogal ci mission la doon dox kon. toogal ci opposition bi nga nekk le chef de l' opposition. nee ci ay waxtaan yoo xam ne da ko doon waxtaan ak Macky moom Idi. si la Macky jékki-jékki ne ko waa mais mbër dégg ngaa ñëw ñu ànd rek. dégg ñu ànd gay. Eh, non non mënu maa gëm lii. est-ce que duñ ñëw ñu ñu ñu ñu takk ndey dikkee. ndey dikkee bi voilà ndey dikkee Samba. ndey dikkee Samba. xarit waaye xarit. barke Rasulullaay mi ngi nii ngi nii mi ngi nii. non dans les discussions il m'a di ne ko de deux points. ndédike bi. waay yow indi les échos bi yow man maa ngi déroulé wala yaay déroulé. mu nan nan fas ndédike gi. nii dégg nga loolu. moo tax Tahirou Sarr. bokk ci bureau politique bu réew mi démb ci seen jotaay journal bi da koo reprendre. Mhm. nee na gis nga Idriss Seck avant présidentielle yi la jaay présidentielle. ne takk na lëkkaloo. avant ñoo dem élection présidentielle la la la jaay élection yi. ba bazardé na ko bu yàgg. yàgg na nee na Idi moom ci dil lay yëngu day dil day dile ah, miin nañu ko ci nag. day dile. <laughs> yi ñu digg ci ay protocole. mais du du dil dil lu ñor mukk dilim dil yëpp day daal. dégg <laughs> dégg lii quotidien ñëw ak ci koppar ji ruusee ci autoroute à péage bi lee moom lekk yëpp ñoo ko lekk ñoom tubaab bi. Sénégal nag ay wecce doomu la ñoom. Ah, xoolal ma kii di Mor Ndiaye. Mm-hmm. coalition tabax bu Boubacar Camara nee na diggante Macky Sall ak Idi del xool du yàgg. Sey bay tas. non tu tu tu tas. seen diggante day mujj yàqu. <laughs> libération yéen kaay nañu Idriss Seck na ñi nga xam ne ay noonam la. Uh-huh. nee na gis nga te gis nga gars yi wax naan ay àndam ak Macky Sall warul nekk waroon na nekk warul ne léeg-léeg lii nee na gis nga ñooñu ñu tuuti lañu te nag ay mbel mbel lañu brillant wax rek la ñuy def. Hmm. mais tolluwuñ ko fii. chef yi. ma fii. yegguñu foofu ci moom. yegg ñu ngi nii toog ñu ngi nii. barke Rasulullah noo idi noo nag neexul ma neexul mais jàmbaar la. <laughs> dégg àndandoo jaxasoo bi mu nekkoon. ak Macky complicité bi ñoom ñaar affaire bi duggaat na. nous avons retrouvé notre complicité. tey dégg nee na la catégorie infime déglu de qui estime que ces retrouvailles n'auraient jamais dû avoir lieu parle pour ses intérêts et non pour le Sénégal xoolal xoolal yi wuy ma ab toq la ñu de gars yi di nga bii retrouvaille bi nii. astuut la ci non astuut bëri wuñu est-ce que duñu dem après. te ñooñee xoolal intérêt wu réew mi taxu leen a jug. waaw kay le quotidien yéen a kaay nañu Idrissa Seck ngi nii nag def na ay révélation barke Rasulullaay mm. nee na Macky moo ne ko bàyyil affaire wu statut de l'opposition ay chef de l'opposition. am na lu a dund. voilà voilà voilà bàyyi ko bàyyi ku def lu rëy am na voilà Nafissatou Diop Cissé ngi nii retrouvé na nag Soomara. tey suñu borom. tey jubóo critique yéen kaay ñëw ak ñun ci Abdoulatif mi weddi nag chiffre yi xam ne moom la OIM génnee. Hmm. Serigne Mountakha waaw. xalifa général Mouride. Barça ak Balzac ji d'accord ca. wax na ca. d'accord ca. Hmm. ndigal la jub na. ndigal la jub hmm. news ñëw ak Macky ni muy tànnee la kenn xamul lan la. tànnee fa Pape Abdoulaye Seck ministre agriculture koo xam ne borom xam-xam la ca bañ ko fa jëlee ñëpp a jaaxle. maître Oumar Youm nan la ko Mansour Faye di remplacer ak inauguration yu bëri yu nekk Cheikh Oumar nan la mën a remplacer Mary Teuw Niane nan la mën a remplacer professeur Eva Marie Coll Seck. Coll Seck waaw Aly ba mu daanee mbas mi ba nuppi waaw daanoom gi lan la Amadou Ba ak ndaw yoo xam ne dañ leen a jël dénk leen ay màggat yoo xam ni pour pour màggat yi gérer seenu ëllëg waa loolu jaaxalu la ab gynécologue jigéen bu war na lor feebaru jigéen kooku loolu liggéeyam nga dénk ko wàllum artisanat gi. da ngay opéré si Sénégal dafa amul ay borom yi xam-xam ci wàllu wu ni moo tax gis nga ma ma kii. sama xarit Alias Diallo sax san bi moo gënoon. <laughs> ma kii daal gis yàlla baax na li ci kanam raw. waaw ah, kay mi ngi nii Sadio Mané ngi nii yóbbu na nag Sénégal Cameroun. Hmm. dem nañ Cameroun nag mi ngi nii. moo kon mat na. voilà mi ngi nii nag. ah c'est bien c'est une nouvelle. voilà dégg loolu. loolu baax na loolu baax baax na. <laughs> tey ban jàpp la ñuy am. sponsor yi moom suba moom il faut ñu defaraat ko tey. il faut ñu raxas tey. Hmm. njaabu décret. njaabu. signé signé décret. décret dafa réew de euh, signature. déggoo li Ablaye Bal di wax si Ziguinchor. <laughs> ne la nee na am na ñeneen ñoo xam ne dinañu ñëw. beneen vague boo war a ñëw. waaw beneen vague boo war a ñëw. yeneen surprise. waaw beneen vague ba sunu sponsor yi kon du jeex. en daal ku dem wala ñuy laam-laam da ngay dem moom man sama big laa yor ni ma ki di signé noonu laay signé. rëdd ku mu jox poste wala nga dem ci moom ñu génnee la. nii nii nii. voilà gàkku moom fi mu ne nii dama koo aj. ay sa ay sa tasaal na koo génn. non ko génn na bu yàgg. kooku génn ah pourtant na moom casting boobu sama yaay la sama avocat la mais génn na. ba mu baax na de. non wax ji day doon benn dëkk benn kàddu. mais benn dëkk ñaari kàddu. dugalal mi nii. kan. non non non mi mi sax mënagul dugg ah mi mi nekkoon ci ñoom. duñ may kenn loxo pour génnee la saako yi. fi mu nekk nii daal Bougane moo dugg ak Ousmane Sonko. <laughs> am na ñu nekk gu seen bi officiel nee nañ boole si Thierno Alassane Sall. waaw waaw waaw parce que moo ngi xeex. non non non ci ñoom la nekkoon waragul bari sax. non seen bi officiel xëcc la de defal ah. la. ci biir Sonko ci biir. Idrissa génn na. écarté nañ ko. yàgg na. ay Aïssata Sall tëb na. Aïssata génn aj naa gàkku. aj nga gàkku fu mu nekk nii. ana daan naa may xaar confirmation décret bi. pour ñu signer bu rotee ma tëbal ko. ajarut ay dañoo ba tey ngi ci biir. ay dañoo ngi ci biir bu demee wàcc Baydi Seye génn na. Eh, déedéet déedéet père Baydi Seye. football naa ko yàgg na dugalal euh, le ministre. doo doo doo may ma jàpp. les forces armées ban jàpp la. bàyyi Sidiki Kaba mënoo muus ba dugg fi. dugal ko rek dugal a ah, koy signal. <laughs> Idi laa wàccee noonu di. wala <laughs> waa seen TV ñu ngi naan déedéet mimi bu mu ñëw. non non ah, doo bàyyi dugal ko. déedéet ñëw fa du ñëw. Bart ah yow Barthélémy Dias na wax jaxeer Gueye. non non non xale fan fi rek baax na. comme ñoom daal xalifa ngi fi. xalifa moo fi nice. ki nee na président Bougane Gueye partout. waaw Bougane day dugg. mi ngi ci. mu ngi ci moom daa mi tàmbalee fi ne wërëm yi de. non non non non teel na dafa na def daal. carburant dafa cher. essence dafa cher. yàlla baax na ñu koy jaajëfal bi. aj nañ ko ci kaw. buy kii xëcc. c'est-à-dire nopp daaneel bi day métti. Ah. daaneel boo ko xëccee bip bi day métti moom kay buy kii may amul ñoo bokkoñ amul dara. non garaaw nañ ko négocier idi moom bif nañ ko moom. idi moom moom dem na moom bu yàgg. <laughs> yàlla baax na ay yéen waa Sen TV l'officiel jaajëfal nañ leen bu baax.